yeesu jàngale na taalu ya na ngeen fonk nit ñi sopp leen ñépp sopp leen sax seeni bañaale te di leen defal lu baax jàppale leen ci lu ñu soxla sopp leen sax ñoo xamante ne bokku leen ak ñoom xaj na bokku leen ak ñoom diine wala bokku leen ak ñoom aada sopp leen ñépp ndax nee na bu ngeen di defee noonu noonu ngeen di wone ne ci njabootu borom bi ngeen di bokk yéesu jàngale na benn nit koom moo doon tukki bu mu demee ba ci yoon bi am ñu ko dogale door ko nangu alalam te gaañ ko am keneen kuy tukki nag fekk ko mu daanu ci yoon nit kooku def ko daldi jël faj ay gaañu gaañum te yóbbu ko ci bérébu fajukaay ba yéesu mu ngi leen di jàngal ne nu noonu ngeen war a mel ak nit ñi sopp leen ñépp